waxtaan wi nga xam ne moo mujj ci korite gi te sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke def ko li ci gën a fës bokkoon na ci woote bi nga xam ne woon na ko ñii nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu média maanaam di taskatu xibaar yi ngir rek ñu gën a mën a yaatal ci taalibe yi li nga xam ne mooy ormay dëkk bii di moom bi mu toogee ci xalifa gi ba tey kii di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke wane na bu baax pas-pas bi nga xam ne am na ko ci seetlu dëkk bii di Touba di ko méngaleeg turandoom ji ci àjjana di ak garab gu sell muy fàttali rek saa dajeek ñoom orma ak teggin yi nga xam ne képp ku dëkk Touba war nga koo làmboo wala képp ko xam ne ñëw nga fi di fi gan loolu moo tax moom si di Mokhtar muy woo ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu tasketu xibaar ngir xam solo si nga xam ne am nañ ko ci wàllu defar jikko ak defar xel ngir ñu jàppale ko bu baax a baax ba yaatal lépp loo xam ne am njàngale la moo xam ne dina tax taalibe yi mën a dëppoog bu baax a baax li nga xam ne mooy ndigley lislaam ci dëkk bii di Touba. woote boobu nag ñëw na ci waxtu boo xam ne lii di rajo yi ak télé yi nga xam ne ñooy woote woo ci yoonu murit danoo bari lool di niru rek ab bataaxal wala programme boo xam ne jox na leen ko ngir ñu mën a feeñal yoonu murit bu baax a baax wala saxal njàngaleem Serigne Touba ba mu feeñ ci jikko yi di woote boo xam ne jëmal na ko ci média yi di woote bu njëkk boo xam ne mi ngi sàkku ci média yi liggéey boobu moo tax rédaction télévision yi wala studio yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo yi war na noo màndargal bu baax a baax lii nga xam ne moom la sëriñ bi woote feeñal seen ak bokk ci yoonu murit wala seen yéene liggéey sëriñ Touba gi nga xam ne moom la ñuy woote woo saa su nekk boo xoolee yenn bàkk yi nga xam ne télévision yi ñu ngi koy bàkku lu mel ni télé xarnu bi ca Lamp TV wala télévision bi nga xam ne moo ñu dajale ci Touba TV wala wane lépp loo xam ne aju ci Touba ci télévision Al Mouridiyyah laaj bi ñuy laaj mooy lan lañu mën a xaar ci média yooyu ndax danañ jëfe li nga xam ne mooy seeni responsabilité wala déet bis yi di ñëw dinañu xam bu baax a baax kenn ku nekk la nga ca liggéey